cette dernière décision du conseil laa bëggoon am sa avis avant ñu gën a xuus ci waxtaan. waaw euh, man loolu dama sëy bind lu leer naa ni mooy euh, conseil bi li mu def tegu ko si yoon conseil constitutionnel. ah euh, ndax conseil constitutionnel moom liggéeyam ñaar la moom dafa war a saytu bépp loi ak règlement buñ teg si réew mi méngoo na ak constitution ba pare bu élection amee moom moo ko war a arbitrer. Mm-hmm. conseil constitutionnel. moom li nekk ci kawam ak li nekk ci kaw ñëpp mooy la souveraineté nationale qui appartient au peuple sénégalais euh, article 3 bu constitution bu Sénégal dafa ni souveraineté nationale peuple bi moo ko moom te si ñaar la koy mandargaalee si ay représentant am ñu koy toogal assemblée nationale ak référendum su amee mm-hmm. léegi bu référendum amee ñu defar constitution jox ko conseil constitutionnel conseil constitutionnel day xam ni peuple souverain moo ko jox bu modification euh, constitution waree am député yi def ko ak majorité qualifiée bu trois cinquième dañ ko jox conseil constitutionnel mu xam ni léegi c'est la loi de la république ndax lii la askan wi dogal jaarale ko ci ay ndawam le conseil constitutionnel moom warul censurer askan wi loolu musul am. Hmm. ci àdduna conseil constitutionnel allemand yi ñoom ñoo ko créé en 1950. après français yi jël ko si ñoom 1958 ñun ñu jël ko si ñun si ñoom si français yi 1992. bi conseil constitutionnel di am ba léegi conseil constitutionnel musul censurer le peuple souverain le constituant parce que loolu di liggéeyam yaa ngi euh, moo du Awa yàgg nañu wax conseil constitutionnel ñu koy consulter mu ne il est incompétent. yàgg nañu ko dégg. incompétence boobu mooy moom lu askan wi décidé moom conseil amul compétence su ne daf koy dindi.